Kaolack kenn ku ne xam na ne Kaolack ak li ko wër ay béykat yi kese lañ loolu dañ ko def priorité suñu programme ñu def it beneen priorité mooy emploi des jeunes emploi des jeunes nag li koy indi mooy agriculture élevage pêche ak industrie li nga xam ne li moo fii problème fii ci dëkk bi te ñu xam ko yaakaar naa ne tey Kaolack ñëpp xam nañ ne bu ñu doon classé dëkk yi gën a salte kenn du ko bàyyi donc te là c'est une réalité donc aujourd'hui Kaolack dafa mérité ñu assainir ko surtout fii ni muy mel ci nawet yaakaar naa ñi fi dëkk yi ñëpp xam ngeen ko donc loolu mooy suñ priorité numéro un au niveau de Kaolack en termes de d'amélioration du cadre de vie mooy régler le problème de l'assainissement asalaamaaleykum mbokki département de ku ñëw fii nag ci ñooro mënuloo bañ a wax ci mbay mbay mi li ma ciy wax man mën naa cee wax bés bu nekk ci campagne ndax dama gëm li nga xam ne lii moom la indil maa ngi dégg candidat Amadou Ba di wax ne dana mën a joxe un million d'emplois bu ñu man ma ne ci mbay mi rek danaa ci joxe un million d'emplois asalaamaaleykum waa Ziguinchor maa am mbégte mu rëy ci accueil bi ngeen ma accueillir fii ci Ziguinchor maay jël engagement fii ne bu yàlla tegee ci bopp réew mi te foofu lay tàmbalee mbooleem doomi Casamance yi nga xam ne ñi ngi des encore ci forêt bi danañu génn dans la dignité en 100 jours. je vais m'engager pour dire je vais m'engager pour dire que Salif Sadio 100 jours vont sortir de la pour ñëw bokk ci société bi dans ndaxte lii ñuy def ñun ñëpp xam na ne amul mucc nañ ñëw del ci fii ñu bokk loolu engagement bu ma jël la en 100 jours je pourrai le faire aussi dañoo bokk ci doomi Casamance yi nga xam ne yi dañoo war a liggéey pour Sénégal